Euh, mu ñu jàngal ñu daal di dikk dal nag ci gis-gis ponk bi ñu fas ne waxtaane mooy tolluwaay réew mi ak rëbb gi nga xam ne ñu ngi koy def ñenn ci waa PASTEF euh, di leen yóbbu ci commissariat yi am na ci sax ñoo xam ne jot nañoo jàll kaso euh, ci la ñu fas yéene waxtaan ak Boubacar Sadio moom commissaire divisionnaire à la retraite la commissaire de police la mm, à la retraite ñi ngi lay nuyu commissaire Sadio. waaw Eh, ñu di ci ànd ak suñu naataango Daouda min moom taskatu xibaar la moo jiite eh, site d'information bi di IGFM eh, xam-xamam nag màcc ci wàllu yoon ñu ngi lay nuyu Daouda. maa ngi lay fay Papa Ngagne. d'accord kon ñu tàmbalee ak doyen Boubacar Sadio fi nga xam ni fi la mbir yi toll ni nga xam ni noonu nga koy déggee ñuy naan jàpp nañu. par exemple soxna ci kenn ci Pastef euh, muy Birame Souleye Diop lu ko jiitu yaa ngi dégg Aliou euh, maanaam keneen koo xam ni itam kilifa la euh, ci benn réunion lañ ko fekk jël ko yóbbu ko après gannaaw bi lañu wax bàyyi nañ ko ku mel ni Abbas Fall itam mu ne jàpp nañ ko ci li nga xam ni siiw nañu ci ñu ñu xam tolluwaay boobu ban gis-gis nga ci am. waaw gis-gis bi mu ci am rek mooy.

bon bi ñu laajee police euh, mu ne euh, dafa ñëwoon pour disperser foule bi bon man en tant que technicien euh, am na lu ma ci xalaat. Mhm. mais pour l'instant sa question du loolu. non mais baal ma baal ma nga wax ma li ci xalaat en tant que technicien parce que loolu aussi c'est important parce que bu fekkente ni ñi di alkaati yi dem nañ fa ba loolu xew xew fa te ñoom ñu ne jël si Sonko wu leen woon mais loolu en tant que spécialiste bëggoon naa ci am sa xalaat. xam nga dañ ne léegi Sonko. Euh, loolu jël si Sonko yëkkatiwu leen. Mhm. waaye nag dama si xaw a jaaxal si gannaaw Sonko jël si Sonko yëkkatiwu leen bon bu ñu mobiliser benn service euh, euh, bu spécialisé comme brigade d' intervention polyvalent. muy muy BIP xaw a jaaxal. Mhm. parce que man dama yaakaar ne woon bi yëf yi tàmbali rek mënoon nañu yónni commissaire bi nga xam ne moom mooy responsable secteur bi. mu ànd ak comme euh, commandant corps urbain ak xëy ñaari alkaati ñu ñëw gisante mhm. Sonko mhm. ne ko ah mhm. bon rassemblement ngi commencé am fii nit ñi lii la ñuy njort ni xëy na loolu police bëgg a def nee leen police deful loolu police jubluwul ci loolu léegi daal boo mënoon wàcc ak sa gars yi nga joxe instruction pour képp koo xam ne ñëw nga fi rek vraiment ñu répercuté ko nga mën a ñibbi waaw noonu laa ko jàppoon dans un premier temps bon ñu dem ba ci biir léegi aussi euh, kon kon su ma la déggee jëli Sonko moo leen yóbbu woon en fait mun nañ ko njort parce que. Mhm. ni ñu mobiliser daal euh, man dama yaakaar ne woon xëy na mënoon nañ sax xam nga léegi léegi sa intervention da nga koy adapté ak sa contexte. Mhm. bon contexte bi ni muy demee c' est tout à fait normal parce que ñoom dañoo regroupé te dafa am loi boo xam ne arrêté boo xam ne dafa tere regroupement bi waaye mhm. toujours booy intervenir rek da ngay seet li nga xam ne jar na ko wala jaru ko. xam nga mënoon nañ leen seetaan foofu rek ñoom ñu nekk ci à quelques euh, cent mètres ou deux cent mètres di leen xool di leen bàyyi bët. bàyyi leen foofu ñu taxaw bàyyi ba ngoon dinañu tasaaroo par force xëy na loolu sax du loo xam ne moom la ñuy ñu yéene mais xam nga toujours rek sa intervention da nga koy adapté ak sa contexte. Mhm. bon bi loolu amee nag mu jur ay manifestation si biir mën nga leen fa bàyyi mais mën nga leen surveiller aussi ndax. mën na dégénérer xam nga maa ngi leen maa ngi leen ne léegi mën ngeen toog fu xaw a sori tuuti. Mhm. di leen bàyyi bët. voilà voilà waaw waaw di leen bàyyi bët parce que on sait jamais daal. d'accord xam nga toujours nit ki da ngay da ngay ñaaw njàttu daal. tout à fait tout à fait voilà donc léegi bi manifestation yi amee léegi mhm ñi di lakk ay pneu di lakk ay essence et cetera manifestation bon vraiment damay profité pour wax Sénégalais yi am nañu droit manifester parce que constitution de moo comme ko mhm. manifestation warul ànd violence. Mhm. warul ànd violence si kaw alkaat yi. warul ànd violence si kaw ay alalu jàmbur. Mhm. warul ànd violence sax ci loo xam ne xëy bien public la. je crois que nit ñi il faut ñu xoolaat de ñuy doxalee. bon ben ñu demee nag ba loolu am léegi nag léegi nag police nag di seet ñi nga xam ne xëy na ñoo donc légui actuellement police si liggéey bi muy def affaire police judiciaire lay def. ah d'accord maanaam waaw affaire mhm. police judiciaire lay def. Mhm. bon dégg naa ni xëy na danoo yore délégation. wala xëy na procureur moo leen ko sal donc c'est tout à fait normal police judiciaire da ngay gis loo xam ne xëy na jalgati yoon la. Mhm. boo ko gisee léegi da ngay seet fexe ba xam kan moo ko def. boo xamee kan moo ko def léegi nga jël ko léegi nga jëbbal ko procureur procureur moo am sañ-sañ xëy na bon euh, c'est nous muy traité affaire bi. donc procureur ci boppam si am na sañ-sañ. Mhm. jël juge d'instruction instruction ne ko léegi léegi dama bëgg affaire bi nga saytu ko. xamna juge d'instruction bi nak ci ay compétence am. Mhm. la jox police délégation judiciaire. d'accord d'accord d' accord dina dinañ dinañ dinañ dina jombul dinañ ci waxat ñu euh, dik ci Daouda Mine. Mhm. Euh, Daouda fi nga xam li nga gis ni yow nga gis ko mu melni chasse à l'homme la ñi ngi top di traquer ñi nga xam ni ño bokku ci ci ci ci bobu lan la la inspiré inspiré ak lan nga ci gis ak lan la mëna a jur pour yow. Ah, man dama japp ni dafa nek lu nga xamante c'est dans l'ordre normal des choses. Mhm. lutax tax ma lu ma wax ko. moy mhm. tey jii bu fekkee ne da nga xol dafa am ñaari dossier judiciaire yu ñu ubbé mhm. benn bu nga xamante dañ ko confier juge d'instruction du 8e cabinet muy affaire viol bi. mo am benen bu nga xamante dañ ko ubbi jox ko doyen des juges muy affaire bi nga xam mo am altiné nga xamante dafa amone ay violence am ay lakk am ay toj am ay blessé boo gisee tey am na ñenn ñu nga xamante ne juge boobu eh, inculpé na leen donc teg na ay tuuma seen kaw. si mhm. ay tuuma yu bari participation à un mouvement insurrectionnel xam nga ak euh, destruction de biens publics ak privés ak euh, incendie criminel ak association de malfaiteurs. Mhm. loolu nag ba mu amee juge d'instruction bi. mais Daouda charge yooyu kenn mënu cee génn de ah. non mënees na cee génn bu fekkee ni bokkuloo ci. ah non d'accord waaw parce que actuellement ni inculpation rek la. après dañuy saytu ndax. ñañ xamante ne tuumaan nañ leen ñoom ñoo def wala defuñoo d' accord bu ñu defee mais Daouda dinaa ci des ak yow ba tey de. ndax ndax ndax ku mel ni Ousmane Sonko génn ci ci dina yomb ci charge yooyu. ci ci charge yooyu fi mu toll nii mënoo ko ci dugal parce que levé guñu immunité parlementaire mais bés bu ñu defee immunité bu ñu levee immunité parlementaire am tey jii mu nekk juge d' bi. mën na koo mën na yaakaar ni wala bu amee ay éléments yu yu koy poussé que ni Ousmane Sonko ci la bokk mën na ko cee installé. mais rien que déclaration mënu ko cee dugal wala mu génn déclaration procureur mën na estimer que ni la nga xamante ne moom la déclaré woon dimanche boobu boobu incitation à l' insurrection la mën na ko estimer parce que comme dañu wax ne moom moo am initiative de poursuite te moom mooy également maître des poursuites mën na moom ci boppam mu def beneen réquisitoire bu ñu tuddee réquisitoire supplétif jox ko juge d'instruction boobu ñoo ne ko damaa bëgg nga jël Ousmane Sonko comme levé nañ immunité parlementaire nga dugg installé ko ci procédure boobu. d'accord mais bu boobaa complice wala commanditaire lan nga ci jàpp ni lañ ko ci mën a toppee. complice wala commanditaire. waaw bon que mu nekk complice bi que mu nekk commanditaire bi boo xoolee li nga xamante moom la loi bi wax ñoom ñëpp ñoo ñoo bokk daan en fait. d'accord ki nga xamante ne moo participé ak nga xamante moom moo commandité ñoom ñëpp. ñoo mhm. yem. àtte àtte ci

waaw waaw police am am na droit anticiper. waaye am amul droit si njort rek. Mhm. ñoo jàpp nit ne da nga parce que il faut que police li ñuy jàpp nii ak ñi ñuy arrêté nii dafa am foo xam ne ci lañ sukkandiku. Mhm. waaw xam nga ni euh, am nañu mun nañ def euh, traçabilité yenn appels yi. Mhm. Euh, am na nañu xarañ nañu ba nga xam ne mun nañ def réquisition Sonatel. pour xam kan moo téléphoné waxtu sangam lu mu téléphone et cetera am na ay jumtukaay yu bëri yoo xam ne daal waaw ñoom tëb tëb ñu rek dem di jàpp ñi kenn ka par kenn comme ça. Mhm. mais du tee aussi dans le cadre de leur travail aussi xëy na mun nañ def ay action yoo xam ne ak action anticipation la bon wax nañu léegi euh, yenn inculpation yi ay euh, manifestation nu mu tuddati euh, incendie criminel association de malfaiteurs yooyu sax mun naa ko mun naa ko mun naa ko nangu sax quoi waaye nag c'est là que aussi mbir mi aussi bu ñu ci profité di ko di. parce que aussi ñoddi ko ba yóbbu ko si yenn infraction yi maanaam par exemple lu mel ni sûreté de l'État kooku beneen beneen beneen affaire la dafa garaaw. Mhm. bon lu melni aussi insurrection parce que ñi ñaa wax insurrection est-ce que xam nañ sax luy insurrection deug deug deug deug mhm. parce que insurrection aussi <laughs> euh, délit la bo xam mom mom mom bu buñ la ko tuumaale pour nga génne si aussi mhm. problème la quoi. parce que da da naka sax cest dans que da nga da nga song réew mi. dëgg la wa lool moy insurrection C'est insurrection bu amé sax je crois que du yam ci policier yi ak gendarmerie rek xeyna militaire sax génn ci. dëgg la d'ailleurs insurrection sax. insurrection mooy tax sax ñuy établir état de siège donc je crois que baax na bu nit ki jalgate yoon ñu topp ko waaye comme ni ma ko waxee rek nañ ko topp ci anam boo xam ne daal dañ ci ànd ak xel dañ ci ànd ak ba pare l' aussi ay nit ñoo xam ne xëy na defuñu dara wala laalewuñu si buñ ci torox daal. waaw loolu loolu lu am am solo la daal. Daouda dégg nga li nga xam ni moom la ñu wax li tax ñu jàpp euh, Birame Diop euh, bu PASTEF ak administrateur bu Dakar euh, muy Abbas Fall dañu wax ni ci plainte bu Mahmoud Sale def la ci appel menace boo xam ni def nañ ko ko loolu dégg nga ko pour yow loolu fan la mën egg ak lan la waaw su ni plainte la wala mu nekkoon délégation judiciaire nga xam juge d'instruction bi ci boppam moom moo demandé dig mu def Euh, dafa mën a nekk parce que tey jii bu fekkee ne da nga jël comme ni ko commissaire waxee euh, police dafa am ay jumtukaay yu nga xamante ne yu bëri mën na ko mën na ko actionné mhm. tey jii comme nu mu la ko waxee mën na def réquisition bu boobaa opérateur de téléphone yi lay demander à que ñu identifier ko benn numéro ñu mën na def localisation bu identifier numéro pare mu xam kan moo ko yor ak san la nekk bu ko defee buñ soit ñu convoqué ko wala ñu dem fekk ko fa mu nekk ñu dem jëli ko Mm-hmm. mën na également exploiter li nga xamante moom mooy caméra de surveillance yu nga xamante moom moo am pratiquement fépp fu nga xam ne moo am Dakar fi mu toll nii. Mm-hmm. pour gis image exploiter ko mën a xam kan moo def lan ak kan moo def lan. loolu yëpp mm-hmm. police police police am na ko tey. buñ demee nag bañ jàpp ni ki nga xamante ne moom la ñuy jiiñ lenn li moom moo ko def wala am na lu ci am na lu mu ci participer. dañ koy téye jébbal ko ki nga xamante moom mooy procureur procureur nga xamante moom la ko code de procédure pénale laaj. Mhm. dama bëggoon nag am benn précision bu may def tànk ne parce que dama dégg commissaire mu wax léegi ci génn bi nga xamante ne waa bib def nañ ko. Mhm. ci ci ci sama xel mu gàtt nag ak lu nga xamante ne en tant que journaliste dama koo fekkee ci lu bari. Mhm. actuellement nii dañ nekk ci benn contexte contexte bu nga xamante ne dañ ne état de situation sanitaire lañ nekk. loi ba gisoon nga ñu ko doon ŋaañi ay jamono. fat temps yee passé mais actuellement ni ci loolu lañ nekk. mu am ay arrêté yu nga xam dañ ko génn ñun dañu interdire tout rassemblement. donc tey rassemblement bu amee. ñi nga xamante ne ñoom ñoo force de sécurité yi ku ci nekk secteur compétence bi nga nekk police dafa am fu mu compétent wi gendarmerie am fu mu compétent wi mhm. secteur bi nga xam fa la amoon foofu police moom moo fa compétent donc dafay ñëw pour appliquer li nga xamante moom mooy arrêté yooyu nga xam ministre de l'intérieur moom moo ko jël interdire ñu disperser foule bi mhm. maintenant nag bu demee ba nga xamante ne am na yenn yi mi ngi commencé àgg fenn fi don gis nañ ay incendie gis nañ ni manifestation yi manifest manifestant yi duggoon ci benn kër bu nga xamante ne kër bu pareegul la nekk foofu di def yenn ñaawteef yi pour déloger leen da ngay jël benn euh, nu mu tëddee euh, brigade bu nga xamante ne outillé na pour loolu ku mel ni brigade d' intervention polyvalente mu ñëw intervenir gis nañ ko ci l' affaire du 23 juin. Mhm. bu nga xam bi mu fi amee waa bib dañoo génnoon. gis nañ fi bi mu fi amee ay émeutes sur l' électricité ay jamono waa bib dañoo génnoon gis nañ fi également ñu fa amee ay émeutes yu nga xamante ne pour ndox meeg ay affaires genre waa bib dañoo génnoon. Mhm. donc chaque fois fu nga xamante ne police dem na ba commencé am yenn débordement yi. avant muy jégg dayoo ba ñuy génne ay gendarmerie nga xamante ne beneen corps la dañuy génne ñoom seen corps d'élite pour porter main forte ñi nga xamante ne ñoom ñooy force yi nga xamante ne peut-être seen ils ne sont pas assez outillés wala amu amuñu par exemple xereñteef bu nga xamante ne yenn attaques yi dañu ko mën a repousser suivant ñoom li nga xamante ne noonu leen jàngal mhm. donc man je vois que euh, intervention bip keroog foofu noonu c'est parce que Afrique demoon na ba commencé jéggi dayoo bu ko defee ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités policières yi daal di jël corps boobu ñëw pour tout simplement. ñu prêter main forte ñoo xamante merci beaucoup Daouda euh, commissaire Boubacar Sadio ndax li Daouda min wax ci intervention bip ndax lolu warna, warna, manam war na mën nga ci mën nga ko comprendre. waaw waaw mais mun naa ko comprendre tuuti ci li muy wax ni xeyna, bu fekk ni force yooyu ñu yóbbu woon foofu si njëlbeen bi danoo débordé wu. Mhm. ñu parce que aussi euh, loo gis rek dafa am niveau d' intervention. dëgg la waaw euh, mooy li mu wax tout à fait waaw boo mhm. gis rek dafa am niveau d' intervention. Mhm. mais ñoom ci information yi ma jot. Euh, dama dama jot ni dañu fa bi alkaat yi dafa demee la ñu ànd ak alkaat yi c' est pas parce que policiers yi dañoo débordé moo tax bib ñoom foofu mais bib dafa demoon bien avant n' est ce pas. loolu la quoi moo tax ma jàpp ni xëy na mënoon na intervention effectivement am na foo xam ne bu fa àggee bi war na def intervention ça fait normal quoi mais c'est-à-dire que période bi timing bi la quoi si mhm. foofu laay waxee mhm. waaw waxuma ni si seen légitimité wala légalité intervention bi non ça je ne mets pas ça en cause mm, d'accord mais euh, euh, commissaire Boubacar Sadio ci lu laaj bu mujj rek xam naa ni ci loolu la ñuy tàggoo ndax euh, réquisition bi nga xam ni moom la moom moom la ñu def mu jëm assemblée nationale ci Ousmane Sonko ndax loolu sa mën na concerner ñi nga xam ñoo nekkoon manifestant yi wala moom rek lay concerner pour yow non je crois que euh, pour le permis euh, parlementaire moi le le concerné quoi. d'accord parce que bu les euh, y a une citoyen non amuñu immunité parlementaire donc une assemblée une ci ñoom waaye nag li tax nag assemblée ñu saisir ko c' est parce que y' a la qualité des députés de Ousmane Sonko. ça ça nous permet ñu des foofu assemblée nationale ak x bi parce que dafa am ñuy jàpp ni euh, ndegam x la pour donc lever immunité parlementaire am du du yomb ndax loolu itam mën nga ko parce que ku mel ni maître Abdoulaye Babou wax na loolu. non mais c'est-à-dire que <laughs> mais x quel kenn mënul lever parlementaire ou kii immunité parlementaire ku ñuy wax x. il est inconnu il est il n'est pas identifié. d'accord voilà vraiment c'est une question bon sens là, quoi. ok merci beaucoup Daouda merci beaucoup Daouda. waaw x bi itam ndax yaakaar nga dina dina dina dina à l'Assemblée nationale. mais il ne il faut pas que ñu def confusion. Mhm. Euh, x au niveau du juge d'instruction, parce que le code de procédure pénale daf procureur mën na requérir mën introductif contre personne dénommée et contre personne non dénommée. que mhm. le juge d'instruction bi Mhm. tey jii procureur mënul jël par exemple Ousmane Sonko mu def ko ci réquisitoire introductif te fekk li nga xamante mooy immunité parlementaire am kenn levé gu ko. dëgg la article cinquante day tere ñu poursuivre un député waaye effectivement. Mhm. mais bu ñuy bind. fële ci assemblée nationale dañuy ne dañoo bëgg nga lever immunité parlementaire député sangam parce que dafa am ay tuuma yu nga xamante moom lañ teg ci kawam. Mhm. buñ ko lever ba pare. après procureur mën na changer réquisitoire bi mu defoon daal di def beneen bu boobaa day demander à ce que ñu poursuivre Ousmane parce que levé nañu immunité parlementaire bu deful noonu avocat yi mën nañ mooy ci procédure boobu jëm koy jëm ko anéantir parce que day nekk lu nga xamante ne. tout à fait vicier toute la procédure. effectivement il faut que ñu xam loolu aussi. dëgg la voilà jërëjëf euh, commissaire Boubacar Sadio jërëjëf euh, euh, Daoudou Mine nekk taskatu xibaar nekk directeur bu site d'information bi di UGFM xam-xamam màcc itam ci wàllu yoon ñu ngi leen di gërëm bu baax mbokk yi mu nekkoon xibaar yi digg njolloor gi ak rajo Futur Média Abdoulaye Diop mu nekkoon ci technique bi Yacine Pouy ci digital bi réalisation bi El Hadj Ndogu Diène